أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق وصلى الله وسلم على الذين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa baax assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu ixwatal iman fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyoo nuyu ci nuyoo yu gën a tedd nuyoo yu gën a sell di leen ndokkeel ci weeru koor bi di àndaat ak yéen ci seen jataayu firi xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ koy faral di defe rekk ci waxtu wi mooy fexe rek ñuy am bis bu nekk bind boo xam ne danañu mën a gunge waaye ñu balaloo ko ci ensegnement yonent bi sallallahu alayhi wa tey ñu ngi am leson bi dellu ci at-taharatu wa fawaidu dhikr mooy xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale delloo ko ci njariñal laab jullit fu mu mën a nekk dafa war a taqoo ak laab moo xam julli jot na walla julli jotul ndax sécurité bi ëpp doole pour jullit lislaam daf ko tënk ci mu nekk ànd ak laab kon jullit bi nga xam ne jamono boo amee laab rek bu la neexee sa xel na dal ndax yaa ngi ci sécurité bi nga xam ne moo ëpp doole sécurité yépp te moom mooy sécurité wu yàlla subhaanahu wa taala euh, ñu tënk ko ci xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax Umar ibn al-Khattab moo ko génnee عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين illaa futixat lahu abwaabu aljannati althamaniya yadxulu min ayiha shaa rawahu muslim wa zaada tirmidi xadis bi ñu tënk bi nga xam ne moo ñu solol te moom mooy omar ibnu alxataab ibnu nufayl ibnu abdil uzza alqurashi aladawi abu xafs suñu waxee omar mu mel ni dana jaadu ci jullit bi mu xam kan mooy Umar ibnul Xattaab ndax benn bokk na ci alxulafa al ñaar bokk na ci al ashara al mubashirin bil janna mooy ki wuutu yonent bi ginnaaw abu bakrin siddiq waaye tam bokk ci fukk yi nga xam ne yonent bi jàkkaarloo nag ñoom ne leen yéen aljanna ngeen jëm ci seenu dund te ñoo ñu bariwuñ fukk rek lañ umar ibnul xataab bi ci la bokk waaye tamit Umar bokk na ci kenn ci ñi juróon kenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy Xafs looloo tax ñu daan ko dàkkantale Abu ndax arab dañu miin soo amee sa doom ñu di la ko dàkkantale wala ñu di la dàkkantale ci sa wayjur bu góor wala bu jigéen loolu dafa bokk ci al aada min aadati al arab ba tey Umar moomu huwa awalu man summiya bi amiril muminin mooy ki ñu jëkk a wooyee amirul muminin mooy ki nga xam ne moo jiite jullit ñi war leena oriente teg leen ci asiraat al mustaqim ndax li ko waral mooy yonent bi salaa sallam bi mu faatoo abu bakrin ñëw dañ ko daan wooye xalifatu rasuul bi mu faatoo omar ñëw ñu bëgg ko wooye xalifatu xalifati rasul mu xam ne lii buñ ko bëggee topp dina gudd ndax ku ñëw ñu naan xalifatu xalifa xalifa dafay xaw a gudd mu génnee benn baat ne amirul muminin fa la ñu jóge nag ku ñëwati rekk ñu lay wax amirul muminin moom ci li jiitu lislaam di ñëw ku amoon wàccuwaay la ci Quraysh ndax gis nañ ne qabilatu Quraysh suñ daan am yitte wala ñu am ku ñu war a yabal lu ci ëpp Umar ibnul Xataab lan daan yabal moo tax kaana safira Quraysh fil jaahiliya mu ngi dugg ci lislaam atum juróom-benneel ginnaaw bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dugginam ci lislaam wuute naag dugginu ñu bare ci lislaam lu tax mooy lislaam daf cee yëg kattan boo xam ne bëccëg boobu la ko am te li ko waral mooy ñaan bi yonent bi salaa salaam ñaanoon ndax bi ñu leen sonalee di leen teg mbugal bu nekk ci màkka te amaguñu ndigal gàddaay te amaguñu doole bareeguñu yonent bi salaa dafa jàkkaarloog boroomam ñaan ko ne ko ah mbugal bi de metti na te néew nañu doole te soxla nañu kàttan kon bu ma sañoon nga dëgëral ñu ci fexe ba kenn ci ñaar ñi dugg ci lislaam ñaar ñooñu kenn ka moo doon Omar ibnul Xataab kenn ka moo doon uh, Abu Jahl ñu daan ko wax Omar ibnul Xakam waaye yàlla ci na mu nammam nangu ne Omar mii moom la fas yéene dugal ci lislaam ndax ñoom ñaar dañu amoon kàttan goo xam ne liñ daan wan yéefar yi ci jamono jooja jullit ñi metti na trop ba tax yonent bi ñaan ne su ma sañoon ndey nga dimbalee ma kenn ci ñaar ñi dugg ci lislaam ndax nga wàññil ñu coono ak lor bi nga xam ne ñi ngi koy teg jullit ñi xam naa sax ci jàngale wax nañ ne yàlla bi mu yabalee jibril pour mu jël ngëm gi def ko ci xolu kenn ci ñaar ñooñu ndax ñoom ñaar ñoo daan ànd muy abu jahl ak umar ibnul xataab ci aljahiliya benn bëccëg ñu ànd ca àll ba ba nelaw dab leen fa ñu tëdd di nelaw bi ñu tëddee di nelaw Omar ibnul Xataab moom dafa tëdde njaxanaay Omar Abu Jahl moom dafa tëdde ndëfeenu mooy jël sa biir tëdd ci kawam bi abu bi bi Jibril ñëwee te yàlla daf ko waxoon ne kenn ci ñoom ñaar ku ci gëm rek baax na bi mu ñëwee mu fekk Omar ibnul Xataab mu tëdde njaxanaay mu ne ah waaye balaa ma fii nekk di wëlbati Abu Jahlin di ko defal ngëm gi kii tëdd jaxanaay daal moo gën a yeyoo ngëm gi daal ko koy jox fa la Umar Xataab daal di amee yëg-yëgu dugg ci lislaam ba bi mu jóyee ñëwee fi mu jaar yépp ba am fekk soxnaam rakkam bu jigéen doon jàng alxuraan di ko ko nëbb far mu bett leen ak ya ca xew yépp du fi xaj loolu ca la daal di doxe dem ci kër yonent bi sallallahu alayhi daal di dugg ci lislaam kon foofu lislaam dafay jàngale ne kon jullit buy tëdd warul tëddee ndëfenaay waaye dangaa war tëdde sa wetug ndeyjoor walla nga tëddee njaxanaay loolu mooy tëddiinu jullit ndax ci wàllu gëstu sax xam na ne tëddeen defe naay même bu dul woon dara sax baaxul ci wér-gi-yaram ndax bu fekkente ne danga amee lu mel ne ay AVC walla ay cardiaque ak yu mel noonu yooyu yëpp ngay tëddee njaxanaay moom moo ci ëpp solo kon loolu njàngale lislaam la boo xam ne jullit bu nekk war na ko bàyyi xel kon Omar yi tamit taxawaayam ci lislaam fis na lool ndax bari na tey fu lislaam àgg ci wàllu lu mu réaliser ci wàllu justice ci wàllu maandu ba tey àdduna bi di ko damoo lu ci ëpp taxawaayu Umar ibnul Xattaab la ndax bari na lu mu yeesal ci déggiinu lislaam bari na sax aaye yoo xam ne léeg-léeg daana joxe xalaatam keneen joxe xalaatam waaye bu wax yu di ñëw dafay mel ne dafay xaw a ànd ak Umar kon day wane ne taxawaayam daal lu am solo la Umar ibnul Xattaab ku amoon jikko la avant muy dugg ci lislaam ndax wax nañ fi sax benn ibaara ci sunu yeneen jataay mooy daana wax ne képp ku jàpp ne da ngay sàkku dara te balaa nga caa jot toroxal sa jikko nee na Omar man yëg naa ne loolu bokkul ci dignité doomu aadama laxad xaaba man zanna annahu laa yaksibu alxarba illa bi xasaarati axlaaqihi booba sax duggagul ci lislaam kon wane ne Omar kon avant muy dugg ci lislaam sax amoon na yëg-yëgu diine kon ñu taxaw ci yennati baat baat bi ci jëkk mooy Euh, isbaaxul wudu mooy fexe ba booy jàpp nan njàpp mi jot bu njàpp bi manqué dëgg la wax nañ ne booy jàpp bokk na ci yi ñu sopp nga néewal ndox mi waaye nag loo ko néewal néewal warul àgg nag ci muy manqué li nga xam ne da nga ko war a raxas at tawaabin mooy ki nga xam ne toujours bu defee njuumte day daal di dabaatal ci saasa bu defee bàkkaar day daal di dabaatal ndax xam na ne li li li li chance am mooy mu nekk ci ngéddal yàlla te ji jikko jullit bi jamono bu defee bàkkaar rek dafa mel ne daa génn ngéddal yàlla nekk ci ngéddal seytaane kon dafa war a daal di gaaw dellu siwaat dellu siwaat ba nag mooy mooy tuub al mutatahirin mooy ñi nga xam ne toujours dañuy sonn ci di setlu ci bàkkaar moo xam bàkkaar bu feeñ la ak bàkkaar bu nëbb yooyu lu am solo la ci dund jullit kon buñ doon firi xadis bi lan la ñuy wax xadiis euh, bi ñu jàng léegi dafay wane importance bi nga xam ne laab am na ko ci lislaam ndax bu ñu gisee yàlla ne jullit bi bala mu ko jaamu jaamu gu mu nangul tàng lu dul ne dafa am laab kon day wane ne ndekete al taharatu chartu sixati salaa te loolu day wane kon wàccuwaayu làpp euh, moo tax xadis bi tamit di ñu orienté ci façon laab ci laab yépp moo xam laab bu biir la wala laab bu bitti moo xam laab bu mag la wala laab bu ndaw la ndax fu ma al wudua la yusamma wuduan illa bil isbaar mooy njàpp balaa ñu ko tuddee njàpp day fekk ne njàpp ma cër yi war a tooy ci njàpp yépp tooyal nga ko na la ko lislaam sante waaye nga ànd kook teggin ya ak ragg bi ak jonj bi ak jàkkaarloo xibla bi ak di teewlu màggaayug yàlla ak di yéene cër booy raxas nga yéene ne cër bii dey wax dëgg yàlla def naa ci bàkkaar sàngam kon maa ngi ñaan yàlla nii ndox mi di setale sobe bi ci sama yaram bi yàlla na génne wàlle bàkkaar yi nga xam ne defoon naa ko ci cër bii sooy gallaxndiku nga wax ko bépp bàkkaar boo waxoon yàlla dina la ko jéggal ci njàpp mi sooy saraxndiku lépp bépp bàkkaar boo fóon sooy raxas loxo yi mooy bàkkaar bu jaaree ci say loxo booy raxas sa tànk bàkkaar boo def jaare ko ci foo dox dem fa yooyu yépp booy jàpp jullit bi danga ngaa war a teewlu foo ci toll nga ne yàlla ni nga ma maye ndox mi di ma setal ci taq-taq yi nekkoon sama yaram yàlla na nga ma mayaale tamit bàkkaar yi ma defoon jaaree ko ci cër bii may raxas nga jébbal ma ko jéggal ma ko ba booy pare ci njàpp mi dangay ngay di set ci mboolem bàkkaar yi waaye da ngay daal di seet tam ci mbooleem taq-taq yi nga xam ne mooy taq takku biti yi waaye nag loolu ki koy am mooy ki nga xam ne alxers yaxrisu daiman ala aadaabihi wa shurutihi mooy jàpp dafa am nu ñuy jàppee dafa am ay teggin <laughs> dafa am i tamit yoo xam ne moo koy yàq am yoo xam mooy tax mu mat yooyu yëpp tam da nga ciy bàyyi xel pour mën a am loolu nga xam ne tudd nañ ko léegi kon daal wa bi hada yakunu alwuduu sababan li izalati alxataaya allati la yuslamu minha gaaliban kon boo ko jaaree ci noonu daal ci la ñuy gis ne kon jàpp dafay tàqale nit ki bépp bakkaar boo xam ne def na ko moo xam bu biir la wala bu bitti waaye naka noon tamit lañuy ñuy déggewaale ci xadis bi mu ne képp koo xam ne jàppe nga ni ko lislaam santaane nee na boo paree nga teg ci ashahaadatayni su boobaa yàlla warlul na la aljanna moo tax ñuy tënk ñaan boo jàppee ba pare nga wax ne allahuma jaalni min altawaabin wajaalni min almutatahirin wajaalni min ibadika alsalihin mooy yàlla yàlla nag ma boole boole ci ñi nga xam ne mooy sa jaam yi nga tànn ñu nekk ay jaam yu yiw nga yiwal leen dimbali leen ñu yiw ba mucc ci bépp doyadi yàlla nag ma boole ci ñoom loolu boo koy ñaan ginnaaw jàpp gu ne yàlla daf la koy daal di nangul ah, mu mel ne yan leçon la ñu war a tiire ci xadis bi ba ci jëkk mooy mooy jàpp am na solo waaye jàpp wiin tamit moo ko ëpp solo mooy lan mooy booy jàpp nga sàmmoonteeg teggiinu jàpp bañ koo def ak yàkkamti bañu jàpp di wax sa soxla bañ jàpp mel ne koo xam ne jàppuloo ndax jàpp dañu wax ne mooy échauffement wu julli waaw boo waree jóg jëm ci julli waxuñu ne boo waxee allahu akbar nga dugg ci julli gi waaye bi nga amee yéene rek jël sa satala ngir laab ngir laablu rek booba la la la la la la jullit bi commencé dugg ci jaamu yàlla gi yàlla commencé la dugalal la ubbil la sa compte yiw lépp loo defati ci diggante bi dañ koy dugal ci biir compte yiw bi kon moo tax kon lu am solo la mooy boo ca tollee kon nga yëg ne yaa ngi ci jaamu yàlla kon nga teewlu jaamu gi bañ cee dugal loo xam ne bokk ci waaye tam boo paree nga ñaan ginnaaw gi ndax tam daa bokk ci barab yi nga xam ne dafa bokk ci barab yi ñi nangoo ñaan ñaareel bi mooy li tax nit ki am tawxid bu wér dafay jaar ci wax waaye du ca yem ndax ginnaaw ashhadu an laa ilaha illallah wa anna dafay laaj loo defati nag loo defati mu mën a layyil baat bi nga xam ne wax nga ko ndax boo nee ashhadu an laa ilaha illa mooy seede naa ne amul benn buur bu dul yàlla kon lépp lu ma yàlla tereeti bàyyi naa ko lépp lu ma santati maa nga ca kon sa jëf baat boobu moo koy tënk moo tax ñu jàngoon fi shuruutu laa ilaha illa fi ngay yeewoo ba fi ngay ñëwaat ci sablal ba booy tëdd di nelaw jullit bi waru fee génn baatu laa ilaha illa allah ci lépp looy def ak looy wax looy yéene koy jëflanteel fooy dem looy liggéey balaa balaa nga ciy dem ci lenn war ngaa xool ba xam lii dëppoo naag engagement bi ma jël sama digganteek sama borom ndax baatu ashhadu an laa ilaha illallah engagement la boo jël sa digganteeg sa borom mooy wax ko ne yow yaay sama buur yaa ma bind yow lay déglu lépp loo ma digal maa nga ca loo ma tere bàyyi naa ko loolu moom nga jël kon nag dafay am solo sa jëf di ko di ko di ko di ko seede di ko dëggal ñetteelu tomb bi mooy ndekete aljanne yaatu na lool waaye tamit bunt ya bare na lool ndax bu waxee ci xadis ne ñi nga xam ne dañuy taqoo njàpp ñoom ëllëg dañoo am buntu spécial boo xam ne ñoom rek ñoo fay duggee comme ni nga xam ne ñiy woor dañoo am buntu spécial bu ñuy duggee ñi nga xam ne dañuy jëf jëf bu baax ci penc mi di dimbalante maanaam yooyu yëpp kon soo ko boolee kon dafay mel ne yow aljanna koon yow passe partout nga mooy porte bu la neex ngay duggee moo tax ayu baabin chita bu boobaa mën nga caa duggee ndax bunt bu nekk bu fekkee ne dafa am code code bi mooy loo liggéeyoon ci àdduna mooy tax nga yeyoo dug jaare ci port booba kon soo dajalee yépp kon am nga code yépp kon soo demee yow al aljanna bunt bu la neex ngay jaare te yooyu yépp nag bokk na ci bunt boo xam ne yàlla daf ko jagleel ñi nga xam ne fu ñu toll dañuy taqoo suñu demee ba yëg ne def nañ lu lu yàq seen làpp ñu daal di yeesalaat saa saasa loolu dafay am solo ndax itamit yonent bi sallallahu alayhi mës na wax bis bilaal bilaal ibnu rabaax nga xam ne nit ku ñuul la woon ñëw topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak condition yi mu duggee ci lislaam ak ni mu mettee waaye terewul benn bis yonent bi nee na ko bilaal wax ma lan nga def bilaal ne ko yaa rasulallah loo bëgg a wax ci lan mu ne ko parce que musuma dugg aljanna ba duma dégg sa tànk yi ngay dox sama kanam kon Bilal am na loo def lu ëpp yi jullit ñi di def mu ne ko ah man de yaakaar naa ne lenn daal laa jàpp ne dinaa koy def te dama koo saxoo mooy fu ma yégee ne sama njàpp yàqu na damay daal di beesalaat njàpp kon daal fu ma mën a nekk maa ngi taqoog làpp waaye tamit du ma jàpp mukk lu dul ne dama julli ñaari rakkaa kon muy ñaar mooy du ma nekk mukk te ànduma ak waaye tamit fu ma yeesale moo xam waxtu julli la wala du waxtu julli ca saasa dinaa naafila ñaari rakaa xam naa sax wax nañ rakaa bu nekk saar bi mu ci daan jàng wala aaye ba mu cay jàng waaye aaye ba boo ko tënkee mooy dafay delloo nit ki ci ne boo demee ba jum def bàkkaar na nga gaaw daw delluwaat ci yàlla mu jéggal la ñaari aaye yooyu la daan jàng ci saar bu nekk ci ci rakaa bu nekk yonent bi ne ko waaw kay noonu la parce que musuma dugg aljanna lu dul ne damay dégg sa tànk yi ngay dox sama kanam kon nga gis ne bilaal ci kanamu yonent bi la doon dox te la ko ko may mooy taqoo laab waaye tamit waxuma la taqoo laab ci njëriñ bi mu am waaye sàmm gi mu lay sàmm ci àdduna rek dafa doy sëkk ndax lislaam dafay jàngal julli bi ne même booy voyager balaa ngay dugg oto sax soo taxoog laab dugg ci oto bi jàmm rek mooy xew incha allah ba baa ngay wàcc loolu bokk na ci yi nga xam ne mag ñi yitte woon nañ ko lool waaye tamit jullit warul génn këram te amewul laab ndax lu tax mooy soo amul laab mooy yaa ngeeg sobe te boo nekkeeg sobee rek dafay mel ne da ngaa invité seytaane ne ko kaay dëkk ak man ndax kat li ma nekkee nii war ngaa mën a dëkk ak man ndax seytaane baro bu sobe rek moom la bëgg moo tax jullit bi warul sàggane di defar ay lelli ay weyam waruloo saggane di defar say sa karaw yi nga xam ne dafa nekk ci barab yi nga xam ne barabu poqtaan yi la wala yeneen yi yooyu yëpp dafa bokk ci ba ci yére yi biir yi ngay sol da nga ci war a sonn pour muy set ndax te gi moo lay sécuriser ci seytaane waaye boo ko sàgganee dafay mujj nekk dëkkuwaayu seytaane dafay mel na ni seytaane di dëkk ci toilette yi noonu tamit ngay soppalee sa yaram def ko dëkkuwaayu seytaane bu boobaa nag pour nga mujj ci dafay jafe kon daal tomb bu mujj bi mooy fadlullahi taala ala hadihi al umma mooy yàlla ku yéene xeetam wi yéene xeetam wi mooy ñu texe ëllëg moo tax ci yéene googu mu leen yéene ñu texe ëllëg mooy yombalal na leen lii tax ñu mën a texe moo tax bari na ngay looy xeeb fekk ne defe ne du dara fekk ne ndekete yàlla loola ci la dëxañ sa aljana soo ko defee rek yàlla nangul la gërëm la te bu la xasee gërëm dugal la ci ñi nga xam ne duutu leen jéppi bu mukk mooy radiyallahu anhum wa radu anhu waaye nag ña koy am mooy ñi sérieux bu ñuy jëflanteeg seen boroom sérieux mooy lépp looy def yàlla ku la bu la xoolee rek yëg ne yow mi wax dëgg yàlla jaroon sa dund gi jaroon na ko sa bind bi jaroon na ko ndax cër yi gi ngay jëf doxale sa digganteek sa borom ak sa digganteek ñi nga bokkal penc mi mooy tax yàlla subhanahu wa taala naw la te bu la xasee naw gërëm la te bu la xasee gërëm dugal la ci ulaika alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa wa saalihin te wa xasuna ulaika rafiqan kon yàlla nañu ci yàlla boole waaye tam ñuy sonn ci yi ñu koy may nag kon xam naa loolu moo doon sunu bindu tey dellu woon ci at-tahara wa fawaidu dhikr mooy laab waaye itam ak njëriñ yi nga xam ne soo laabloo ba pare ngay tudd yàlla nga di ko ci toftal tënk sa làmmiñ ci di wax lu baax di jàng alquran dhikrullah subhanallah yooyu mooy wétli jullit mooy tax jullit bi di wétli koog yàlla mooy tax jullit bi di sori seytaane waaye bu fekkee ne sa làmmiñ dafa wet ci tudd yàlla dafay daal di miin tudd safaan te bu boobaa dangay ngay daal di nekk complice seytaane loo duggati barke du ca nekk njëriñ du ca nekk waaye musiba rek moo cay nekk wala iyaadu billah kon ñu ngi delluwaat di jéglu mbokk yépp di ñaan yàlla mu nangul ñu sunuy koor nangul ñu sunuy jaamu yàlla sawaral sunuy cër ba ñuy def lu baax bu ko defee ñu ngi tënk foofu sunu waxtu sunu kàddu di leen jox beneen bind incha allah ci yeneen ndaje wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu